jere ngeen jeuf mbokk ya internet yi ginaaw ba ñu nuyo ñu leen di jaajeufal ginaaw nak ba dogal ba wacce ci kaw president Ousmane Sonko boobaak legi nak selu nañ fele ci diwanu Ndakaaru jamu ja nag des na fa loola ndax gis nañ ñenn ci ndaw ñi dañoo wacce ci mbedd mi di naxarlu loolee nga xamni ni tek nañ ko ci kaw Ousmane Sonko ne loolee nag jékkul jaaduwul bëgguñ lu dul écarté ki di président Ousmane Sonko ba tey ngay wéy ci digënté Ousmane Sonko ak Mame ñaan ñi ne bobé nak jaarul yoon ndax ñenn ci Sénégalais yi dañu ne woon kii di président Ousmane Sonko na faa jaar rek ko fa jaarale ba du bokk ci élection présidentielle yi di ñëw gannaaw ak di ñëw yan jafe la mën a jural réew mi di Sénégal ndax loolee nag bis bu amee rek Sénégal dina tàbbi ci guta gi nga xam ne duñu xam fu ñu koy waxee gannaaw wax jooje nag la ñenn ci Sénégalais yi di day bokk ci élection élection yi ñu jëm ci nii wala ci nële ndax kenn du anile candidature am gi nga xam ne nii ñenn ci sénégalais yi joxoon nañ ko bopp ba ne moom la ñuy wooteel fii ci réewum Sénégal bu amul loolee nag jàmm ji du mën a sax dàkk te loolee nag dañuy ñaan yàlla jàmm ji di